Vous êtes sur l'imamiti.com, l'actualité des stars, people, divertissement et faits divers au Sénégal et en Afrique. mbokk internet li ma metti ñu ngi leen di nuyu di leen dalal di leen remercier comme à chaque fois ci top bi ngeen ñuy top dañuy ñëwaat ak yeen ci actualité di concerné ki nga xam ne moom mooy jeune chanteuse bi nga xam ne moom mooy Dieyna moom nag ginnaaw problème bi nga xam ne amoon na ci diggante moom ak ki nga xam ne moom mooy Diop bu isaac ba ñu jàppoon kooku daal di koy tëj fa li nga xam ne moom mooy prison pour abus sur mineur ki nga xam ne moom mooy Dieyna daal dinay accouché selon site bi di Kéwoulo TV ki nga xam ne moom mooy xale bu jigéen bi daal dinay wasin 4 avril bi ci benn doom góor ñëpp doon nañ lam-laamee ndax xale bu jigéen bi ëmb na wala ëmbul réponse bi nag daal dina ñëw tey ginnaaw accouchement bi nga xam ne amal na ko tey newoon nañ nag dinañ effectuer li nga xam ne moom mooy test ADN ngir xool ndax job isek moom moo jur doom ji wala juru ko loolu nag ginnaaw accouchement bi dina mën a nekk metti point comme dina leen toppal information boobu ba xool nan la job isek di mujjee ak xale bu jigéen bi di Dieyna bu leen fàtte à chaque fois continuer topp comme ngir am information cloche de notification bi da leen ko bës ngir mën a am information yi foo leen ti toll ma leen di jox rendez-vous beneen yoon ci bi limametti.com Vous êtes sur l'imamiti.com, l'actualité des stars, people, divertissement et faits divers au Sénégal et en Afrique.